alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen ci seen chaîne malben bu leen fàtte bës cloche bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi mu alaaj Abdoulaye ak Cheikh Tidiane mu alaaj Abdoulaye ak Sidi Ahmed bukaar Niang man ak ñoom Baye Mokhtar ak suñu génération ñoom Mamoun Moussa Ali si ñun ñoo nekkoon Matamulaana ñun ñoo nekkoon Matamulaana léeg-léegi suñu toogee dañuy jógee Maat Mulaana dem ba Jarraariya suñ jógee ya dem jaar noonu ñëw Boubacar bu ñu ñëwee Boubacar boobu ñoom nee naa la boobu Boubacar mi ngi nekk ay juróom-ñeenti kër ñu ngi ko sanc bees léegi Boubacar suñ yegsee Boubacar ndeysaan dañ daan ñëw bu ñu ñëwee moom itam ci Cheikhul Xayri ndeysaan jamono yooyu bu ñu ñëwee ñoom boobu sax ñoom it duñ ay mag buñ ñëwee moom ak xaaj boobu buñ ñëwee léeg-léegi Cheikhul Xayr moom it yëkkati hadiyaam jox ñu bu ñu joxee suñu hadiya ñu doxaat ndànk yoleeku ko ndeysaan dox ci xàll bi ci désert bi ñib siwaat bu ñu ñëwee léeg-léegi ñu jënd ñu may ñu ay mbisk léeg-léeg ñu may ñu fa ay poti meew kon ñu xam ko bañ nekkee ay ndaw ca daara ja mu ne koo xam ne diñuy di ñu jox suñu xàddiyee maam di ñu xool ndeysaan léeg-léegi ci suñu ñëwee Boubacar ca jamono jooju loolu lañu loolu muy mbaax googu ak bëgg baay gi ñu gis ko ci moom ca jamono jooju euh, ndeysaan euh, ñaari xat ci gannaaw muy 2018 bii passé dama toog benn bés sama baay ooma ne ma dama laa soxla ci néeg bi ma jógee ñëw dugg ci néeg bi ñëw dugg ci néegi sama baay fii ci Medina dugg fekk mu mu ngi toog mook cheikhul la xayri ah léegi ma ñëw toog nii cheikhul xayri nii sama baay toog sama na ne ma cheikhul xayri mii day moom moo ñëw bëgg pour ma jox ko lijaasa tabarrukan cheikhul xayri li mu defal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci lislaam gi li def ci lislaam gi li mu def ci mbaax ci tariqa wi li mu def ci mbaax ci fayda cheikh Ibrahim su jógee toog ba 2018 mu ñëw ci papa cheikh di soxla mu jox ko lijaasa ñëwut pour ku ko jox bëtëre wala ñëwut ñëwut pour dafa amul doole wala déedéet moom li mu liggéey liggéey ci lislaam liggéey ko ci tariqa wi liggéey ko ci fayda gi dafa ñëw rek pour lan pour wane ne fii mooy buntam ci daawa gi moo tax mu ñëw ci papa Cheikh soxla pour mu jox ko lijaasa sama baay xaw ma ma ñëw bi ma ñëwee man ak Cheikhul Xayri ci biir néeg bi ak sama baay Cheikh Khayri mu ngi may dégg ma jël sama baay jox ma lijaasa bi ma bind lijaasa bi bi ma bindee lijaasa bi ba pare muy ijaasa itlaaq bi ba pare ne wëlbati page bi bind li nga xam ne mooy lan bind li nga xam ne moom mooy dégg nga mooy ibnu ci asma sitta wala asma al arbaa allati la tashmaluha al ijaza bi ma ko bindee muy fatiha bi neetal ism salatul fatiha bi neetal ism xisbul baxra ak musabahat bi ma pare ba pare tamp bind ba pare bind date bi bi ma bindee date bi ci dama ko bind ci weeri tubaab ba pare nag sama baay tamponné ma ma jox sama baay mu mu tamponné signé sama baay yëkkati ijaasa bi jox ko cheikhul xayri bi mu ko joxee cheikhul xayri cheikhul xayri xool ci gannaaw gis ma ma liiral ko ko cheikhul xayri gis ma ma ma bind date bi ci weeru tubaab cheikhul xayri ne ma ahmadu ma ne ko mu ne ma cheikh ahmadu ma ne ko mu ne ma booy bindati taarix den bind taarix al hijri sa maam cheikh ibrahim Niass taarix la daan bindee ma ne ko ah, moom day xam nga problème bi mooy ñun dañ doon xamati weeru olof fu moo tax jamono ji daanaka weeru tubaab la ñuy a xam léegi cheikhul xayri ne ma ah man day weeru hijri bi comme moom la bàyyi doon moom la bàyyi daan moom daan daan tëj daan daan bind bindal ma hijri léegi ma ma ma jëlaat kayit bi seetal ma maanaam sew sew googu mu dema comme baay moom la daan tëjee moom la daan tëjee leetara ni yow euh, ijaasa bi damaa bëgg nga bindal ma ci euh, euh, hijri après ma ne ko waaw ah, man day damaa xamut tay la lan ci weer ma wax sew xëy na man day damaa xamut tay la lan ci weeru olof moom ci boppam mu ne ma tey la nangam sàngam ma gaawaat jëlaat ijaasa bi bind weeri arab bi weeri olof weeri ah, dégg nga hijri gi ba pare ak ba pare joxaat ijaasa gi sama baay te ma ko joxaatee sama baay cheikhul xayri jël ijaasa gi ba pare ndeysaan foon ko ci suñu kanam ba pare nag lemut ko sax comme ni ñuy leme ijaasa dugal ko ci boo daf ba pare fekk boobu ki mu ànd ak muy bëkk néega mu ismaila mu ci saal bi léegi cheikhul xayri dugal loxoom ci poosam génne cent jox sama baay addiya bi mu joxee sama baay cent dugalaat loxoom ci poosam génne cinquante jox ma ma jël cinquante daf ma ko jox rek ma jël cinquante mille jox ko sama baay sama baay cheikhul dugalaat loxoom génne ma jëlaat beneen cinquante mille di ma joxaat beneen cinquante mille ma joxaat ko itam sama baay léegi sama baay ne ko cheikh mu ne ko ah mu ne ko gis nga ahmadu mii moom bëggul xaalis amul soxla ci xaalis boo ko doon jox téeméeri cinquante boo ko doon jox téeméeri li ko boo ko doon jox itam ba ba suba dana ma ko jox ma amu soxla ci xaalis léegi Cheikhul Xayri ne ma léegi waaw Cheikh Ahmadou ma ne ko mu ne ma léegi am nga téléphone ma ne ko am naa téléphone dégg nga paa bi ñaanal ko mu jóg bi ñu jógee ba dem ba ci saal bi Cheikhul Xayri wax Ismaïla ne ko léegi damaa bëggoon nga jël numéro Ahmadou mi maa bëggoon nga jël numéro Cheikh Ahmadou léegi Ismaïla laaj ma suma numéro bi ma jox ko ko mu enregistré ko ci téléphone am léegi ñoom ñaar ñu dem bañ demee matu 30 minutes suma téléphone bi sonné bi ma jëlee muy Ismaïla Ismaïla mu ngi may dégg moom it Ismaïla ne ma Cheikh day moom ma waxoon ne ma ñu ngi fii ci kër gi daf daa soxla woon bu fekkee ne daf laa soxla woon pour nga ñëw ma ne ko waaw baax na léegi ma jóg bi ma demee yegg ka Cheikh Xayr fekk Ismaïla moom itam mu ngi woon ci mbedd mi doon ma xaar ma ànd ak moom mu bañ dugg nekk Cheikh Xayr bañ duggee nekk Cheikh Xayr léegi moom mu génn ci biti bàyyi ma maag cheikhul xayri ma duggee maag cheikhul xayri nag léegi ñuy waxtaan biñ toogee di waxtaan léegi bi ñuy toog di waxtaan nag ñuy waxtaan maag moom ci néeg bi di waxtaan may waxtaan ak moom ci arab comme comme damaa déggoon naari xastaan yi waaye dama koo fàtte ndax damaa gëj Mauritanie léegi may waxtaan ak moom ci arab yal fusxa moom mu ne ma man dégg naa olof ma ne ko ah, dégg nga mu ne ma dégg naa olof ñu commencé di waxtaan ci olof mu ne ma waaw Cheikh Ahmed ma ne ko mu kan mooy yaay ma wax ko suma yaay mooy diw diw nangam nangam bi ma ko waxee tur suma tur yaay mu mu ne ma ah doomi Ba Dieng Dieng doomi Ousmane Niass commencé limal ma ci suma maam yi bam ay ma ne ko ah yow ah allah ñu nga mel ci askan wi mu mu ree ñu waxtaan maag moom ci biir néeg bi bi ñu waxtaanee lu yàgg ci lu nekk léegi nag après reer jot ñu indi fa ndeysaan mu ñu indil ko macarona muy macarona ak ganaar goo xam ne dañ koo muusal macarona ñu maag moom ñu mu ne ma bismillah ñu reer dégg nga bi ñu reeree ñi waxtaan mu may daggal ci ganaar gi di ma tegal may lekk waaye ganaar gi comme man damaa bëgg kaani ganaar gi amut kaani te naanaka dafa mel ni moom duy lekk xorom ganaar gi amut kaani ñaareel ba itam ganaar gi dañ ko muusal amut xorom amut jimbo amut dara dégg nga léegi nag euh, macaroni gi daal moom amut xorom léegi nag man maa ngi lekk waaye daal lekk gi daal neexuma dara ndax moom safut xorom dégg nga léegi nag waaye terewut ci teggin rek moom itam mu may daggal ci ganaar gi may lekk léegi bu ma daggalee rek man itam ah man itam ma ne xaaral ma lekk rek maanaam xëy na ci rek suru luqmati waaye daal wax dëgg yàlla euh, may moom ñu reer ñu reer ñu reer ba pare bi ñu reer ba pare ndeysaan <coughs> mu jël maxsal bi maag moom ci biir néeg bi mu jël maxsal bi fekk dafa jëloon maxsal bi soppil ma ma raxasu fekk boobu moo nag moom rek ñoo ne ci biir néeg mu bi ma joxee maxsal bi soppil ma ma raxasu bi ma raxasoo ba pare léegi man itam ma ne dama koy jox mu soot mu raxasu mu ne ma déedéet moom moo moo moo sottil boppam bi ñu reeree ba pare léegi nag mu pa bi ñu reeree ba pare ndeysaan daanaka moom ñu ci biir néeg bi mu jël maxsal bi moom cheikhul xayri sottil ma ma raxasu ba pare léegi moom itam mu war a raxasu ma nit ma ne ko nag foog danaa la sottil mu ne ma dooma sottil wax mu ne ma dooma sottil moom moo sottil boppam ndeysaan ci teggin ak moom moo sottil boppam raxasul boppam ba pare nag toog waxtaan bi ñu waxtaanee lu yàgg ci lu nekk ndeysaan keroog ci guddi googu après ci mujj gi mu dugal loxoom ci poosam génn benn cinquante mille ne ma sa papa sànq bi ma la joxee cinquante mille yi nga jox ko sa papa ma jox joxaat la nga joxaat ko sa papa mu ne ma dama ne ñetteel bi il faut danaa ko yëkkati dégg nga jox la ko moo tax ma oolu la fii pour suma nga ñëw reer ak ma tabaru kay nga reer man ba pare nag mu yëkkati cinquante mille bi jox ma ko kon muy koo xam ne ñaare baytam am na beneen sew boo xam ne seelu naa ko ci moom ci mbaaxam ak xam baay ak dégg baay ak bëgg baay mooy dañuy toog at yi ci gannaaw ñetti at ñeenti at ci gannaaw Yahya Jammeh muy président Gambia oolu woon sama pour léegi dafa bëggoon pour léegi sama baay ca Independence Day bi ñu ko invité mooy avant muy daanu ca xat moomu léegi sama baay woon naari gànnaar yi ñoom xaajun misiri ñoom xam ne xaabro lax wi ñoom dégg nga mu oolu leen pour ñu ñëw ànd ak moom ci da ngan nga so bi leetar yi cheikhul bi li yeggee ñu woo cheikhul xayri cheikh feeg sama baay dafa wane woon ne léegi ñun buñ ñëwee ci leetar ba dañuy ànd Yaxya Jammeh dafa yónnee woon ay ay ay billet pour ñun ñëpp dañuy déparé Dakar dem Banjul dégg nga waaye sama baay bi mu yónnee xaajul misiri ñëw Cheikh Janul Sayid ñëw dégg nga léegi Cheikhul Xayri moom it ëllëg bi moom bi bi mu jotee ci leetar bi nga xam ne xalifa bi nee na pour mu ñëw pour ñu xànd ci ngan gi moom def na moom day ñëw waaye yooni suuf lay jaar ndax moom mu ne moom du def mukk lenn mooy lan moom du jël vol mukk di ñaaw ci jaw goo xam ne maanaam muy di ñaaw ci jaww joo xam ne bàyyi di jëlee vol dakaar di wàcc Dakar di jëlee vol Nouakchott di wàcc dakaar wala muy jël vol ba Dakar di wàcc Banjul mu ne moom du tiim mukk Cheikh Ibrahim ci jaww ji moo tax moom mu ne moom daal ñun nañ wax jël yooni avion waaye moom yooni suuf lay jël yoon boobu noonu day ndeysaan moom dafa jël yooni oto jugee Boubacar ñëw yegg si Medina bi mu jugee Boubacar ñun ñu ngi jëm Dakar dégg nga bi waaye moom daf ne dafay jël yooni suuf jël dem Kaarang dégg nga noonu la def jël yoonu suuf jël dem kaarang muy sew sew goo xam ne foofu ci kaw xam ne ku xam Cheikh Ibrahim ak kuy dund xaqiqa rabiat kuy dund xilaafa kuy dund rawsiyat Cheikh Ibrahim dégg nga da xam ne kii jàngaleen nañu da nga jël da xam ne ki yokkal na la sayru yokkal na la sa sayru ndax itam sew sew googu muy loo xam ne wax dëgg yàlla du jël vol jugee noo ak soot di tiimbaay di wàcc dakaar bi jëlaati tam vol di jugee dakaar di wàcc Banjul mu ne moom dafay jël yooni suuf jël kaarang dem jaar yooni féeri bi ñun ñu nañ jël yooni avion bi te loolu la mujj def ñun ñoo mujj jël yooni Dakar man ak sama baay ak ak délégation bi ñeen àndatoon ak yëpp ci mbokk yi ak Hadji Mich ak Cheikh Diallo Sey dañoo mujj jël vol jugee da jugee Dakar dem wàcc Banjul moom mu jugee fii moom Cheikhul Khayri dem kaarang an dem yooni jël yooni suuf muy sew sew boo xam ne cheikh ibrahim lam lay wan moole le kii buntam moom kii mooy buntam ñaareel ba ki nga xam ne mooy tantaam mooy bint aadda ñu gën ko xamee ci abdoulahi wala abdoulahi am na mag mu may wax ne ma daf ko daan wax comme moom dégg nga doomam la da bint aadda mooy abdoulahi wala abdoulahi daf daan wax cheikh ibrahim ne ko ñaari weer bu ko gëj mari na mayuma la ñaari weer bu fexe ba bu gëj ma dina ñaari weer ba jamono événement naar yi bi kuy ko quatre vingt neuf quatre vingt dix dégg nga jamono yooyu dañoo tëjoon frontières yi balaa ñaari weer da nga fekk Cheikh Faye dana daan yegg si Medina kenn du xam fan la doon jaar kon loolu muy lan muy cofeel goo xam ne xam na ko ci Cheikh Ibrahim cër gum jox Cheikh Ibrahim su ñëwee sama baay di ko laaj ijaasa gum bindal Cheikhu Tijaan bu bu di laaj sama baay ijaasa Cheikhul Xayr bu ñëwee 2018 di laaj ijaasa Papa Cheikh laajut ijaasa lu dul di wane ne fii mooy buntam fii mooy macharawam ci loo Cheikh Ibrahim ci la xamee lépp ndax ay wuy juram ak ki nga xam ne dégg nga moom mooy sëriñam mooy Mouhamadul Michiri lépp Mouhamadul Michiri kooku ni mu meloon ci Cheikh Ibrahim booba ci doon wax sax daanaka dégg nga waxtu wi du du du dégg nga day xat waaye kon madrasa googu muy madrasa Mouhamadul Michiri muy madrasa gi nga xam ne bu demee ba naan la wa in qiila li yowma alqiyamati faxtabit loolu Mouhamadul Michiri rek ko ko wax ci kaw suuf te kooku mooy sëriñam kooku mooy ki nga xam ne moo ko nàndal bëgg bàyyi kooku mooy ki nga xam ne moo ko wan Cheikh Ibrahim kooku man dégg nga moo tax dégg nga bu mu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu ñëwee nag am ñoo xam ne dañuy askanuhu ci moom di wax yenn wax yi di jàllale yenn kàddu yi dañu naan leen kooku du kàddoog cheikh wudul xayri waaye seen kàddu la yéen waaye man mii ba man ba ñu nekkee ndaw laa la wax ba ñu nekkee ndaw lañ ko xam ci année soixante-dix-neuf boobu Boubacar juróom-ñeenti kër la woon dégg nga ñu daan doxantu daan jóge maam di dox ci désert yi di dem léeg-léeg bu demee ci Cheikhul Hadi comme li ma leen wax sànq rek kon bu amee ñoo xam ne ñi ngi askanahu di wax di ay wax yoo xam ne yu rëy yoo xam ne bëgg bës la loolu duñ wax lu dul rek ne moom ci boppam euh, bëri min kulli Euh, wax yooyu nga xam ne ñooñu ñu koy jàllale ak ña nga xam ne ña ngay xoote ne dégg nga ña nga xaskanu ca moom amaa nag boo ñëwee ci lu jëm ci wàllu xilaafa xilaafa moom muy weneen tontu bi xilaafa moom dëgg la ki nga xam ne moom xilaafa moom poste la rek waaw ka ca toog ca zahir dégg nga bu fekkee ne nit ki maire la monsieur le maire la wala président la wala ministre la su kooku su wàccee dana am keneen ko toog ca palaasam loolu dëgg la waaye su ñëwee ci Cheikh Ibrahim dëgg la alxayu laa yas dëgg la alxayu laa yastamiddu illa min alxayi kii dund kii dund rek moo ko mën a nàndal te loolu ci dëgg waaye nag su ñu ñëwee ci Cheikh Ibrahim qaayida foofu day am chuzuz chuzuz dégg nga ndax qaayida gu nekk dina am chuzuz fii nii qaayida gi dafay def chuzuz kon Cheikh Ibrahim bu ñu ñëwee ci qaayida gii nii dañu naan la dëgg la amu ci mën ngaa ñëw ci sayru bi am na huwa al awalu wal axiru wa zaahiru wal baatinu nga am huwa muy damir nga am xaqaayiqi ñeent yi nga ñëwaat ca fin ba mu ne la wa huwa bi kulli shay'in alim damir yi wa huwa bi kulli shay'in ci ñi nga xam ne ñooy dox ca sayru nisa bi yàlla ci boppam mën na laa wan ki nga xam ne moo taxaw taxawaay ak dégg nga alxalifa alxay mën na koo ñàkk a wax mën na la ko ñàkk a wan itam waaye bu la ko wanee dégg nga dégg nga bu la ko wanee xayrun te bu fekkee ne hittoo nga ko te dox ko waaye itam am na ñoo xam ne nekkoon nañ fii ci Cheikh Ibrahim nekkoon nag nekkoon nañ ak Cheikh Ibrahim bàyyi nekk fii ci Marina ñoom ñi nekk ak moom ci biir Marinaam gi bàyyi nekk di xalifatullahi wala ñu dëkk bàyyi nekk fii ci biir Marina ñoom ñu nekkoon ci biir Toofak wala Saam wala ñu nekkoon ay ndooroon wala ñu jege ko wala ñu bokk ak moom benn réew ba pare te bàyyi te yàlla wanu leen woon nekk yi mooy suma xalifa te terewutoon yàlla wanoon na ñoo xam ne ña nga dëkkoon ba penku wala ña nga dëkkoon ba xarfu wala ña nga dëkkoon ndeyjoor wala càmmooñ te daan bëbbee fu nekk di ñë di wuy sib Cheikh Ibrahim kon loolu fadlullahi la te la bàyyi waxoon rek ca qadiya dégg nga kat santoon soxna dégg nga ba mu demee ba xoote moom ca jamono baay ba affaire bi mu yaakaaroon ne moom la bi mu demee ba rikkiiku ci mujj gi bi ñëwee ñëw di tuubal si baay baay def na ko diw mu ne ko ha mu ne ko man yàlla ci azal azalil azal daf maa huññiloon maanaam mbooleem ma dégg nga xisaanaam nga ma tibbu ca la ma soxla ci sumay taalibe képp ku ma tibbu suma taalibe nga su ma taalibe ngay doon ña ma tibbut duñ sumay taalibe kon boo ñëwee ci sëyru nisa bi yàlla ci boppam bu jëlee jëmmu def ko muy dund mu def ca moom lam def ca moom jëmm jooju bu toxoo yàlla gën a remplacer keneen waaye nag bu ko remplacer itam bu la ko yàlla baaxee te mooy li ma la wax ci sayru nisa bi wa huwa bi kulli shay'in alim nga am ko ci sayru nisa bi ci ne kii nga xam ne moom mooy taxaw taxawaay ki nga xam ne moom mooy taxaw taxawaay xaqiqa xaamisa su fekk am ci sayru nisa bi cër ci mbooleem ci ci zaatu am cër ci xaqiqa al muhammadiya am cër ca jënga ca ca ca ca ahmadiya am cër ca xilaafa ci xilaafa moo tax mu mën a taxaw ñu ne ko wa huwa alimun bi kulli shay'in ci nisab yi nga xam ne am na ko ci mbooleem ñooñu dégg nga looloo tax waaye itam bu yow itam ka murid yi yow mi nga xam ne jaam nga yow mi nga yow mi nga xam ne murid nga ab taalibi nga boo ko doxee bu la boo ca doxee ba yàlla wan la ak kum la wan kon yàlla baaxee na la soo ci doxut yàlla wanal la ko boppam baax na su la ko yàlla wanut wala hittewoo ko itam comme li ma la wax rek Cheikh Ibrahim nekkoon na fii ci biir Sénégal di dund ak nit ñi te amoon na ñoo xam ne ñu ngi dëkkoon ak moom fii ci biir Madina te yàlla wanut leen woon lu dut gisuñu woon bàyyi lu dut dégg nga gisuñu woon lu dut ne kii Ibra moom dégg nga Ibu Ibu la woon wala Ibra mu as mu as mu as ñam kese yàlla wanut leen benn cër ci Cheikh Ibrahim